jaaykat yi ci marché rond-point Liberté 6 tis ak nakar lañu xëyee tey gannaaw bi leen ministre bi yor wàllu urbanisme Abdou Karim Fofana xamale woon ni dina leen jële fi nga xam ni mooy seen bërëbu liggéeykaay am nañu ab mbetteel lool ndax ci seeni kàddu altine ni gi tey lañ leen waroon a yëkkati ñii di takk der yi bàyyi ba biig ci guddi jaar seen ginnaaw daal di rajaxe lépp li fa newoon ñoom ñi fay liggéeyee nag am fa seen teraanga takk nañu seeni morso yu xonk ngir ñaxtu lii leen metti ku fi doon jaay rek gis nga sa bopp macha allah man nag añ laa doon jaay fii waaw yàlla def nag euh, temps yee préfet woote ne képp kuy jaay foofu dañ lay def dañ lay jox ndàmpaañ ngeen quitté léegi nag am na ñoo xamante ne tamit jox nañ leen ndàmpaañ man mbir wax ak yow man kenn fayu sax te man moom yàgg naa fi waaye ñi nga xamante ne ñoo fi mujjee ñëw ñooñu moom fay nañ leen parce que ñoom heure bi ñuy ñëw fi ñu ngi fi ñëw ay 9 ay kii ay 8 heures affaire yooyu noonu lañ fi ñëw suba teel ba ñu ñëwee ñu xool ñi fi ñu bind seen tur dem léegi ba ñun ba ñëwee ñun ne ah am nañu ñu fi ñëwoon di bind tur yi pour ngeen jóge fi ba ñu wootee foofu tam dañ ne waaw dëgg la nit ñi dañ fiy jóge waaye euh, romb nañ ba pare kon c'est trop tard mënutu ñoo bind seen tur ah ñu ne ñun ñun de yàgg nañ fi te ñun yàgg nañ fi ngeen bind ñi nga xamante ñoo fi mujjee ñëw ngeen bàyyi ñi fi xam ñoo fi ñëkk ci rond bi ñu ne ah instant yi daal c'est trop bind nañ tur ba pare noonu lañ ci toll ñun démb si guddi nag lañ ñëw dégage man mii di wax sama baas ñaar fukki junni laa ko defarloo dem na parce que démb man xëy siwu ma démb ñëw ma jaay si waaye xam naa ba ñu ñëwee fekk tamit xam naa si lañ ñëw dégagé yëpp yóbbu bagage sama bagage yaag sama taabul yaag baas yaag yëpp dem na yëpp dem yëpp yëpp yëpp ndaw yi fi ne xol bu nakari fas ci seen kanam ñuy xamle ni am nañu mbetteel ci nguur gi ndax bi ñuy fal kii di njiitu réew mi xalaatuñu woon lii ci moom sama xol jeex na fees na te xam naa li ma dund ñëpp moom ñu dund parce que yaakaar bu tas la man maa ngi fi fii depuis 2013 yàgg na sama morom noonu keneen noonu fi lañ doon suturloo sàcc ñu ñu ñaanuñu lebuñu taxawaalewuñu politiciens yi fekk nañ fi ba taay ñu jàppale leen ba ci Macky Sall mii fii ñëw na fii élection yi ñu ànd ak moom zibile jàppale ko ba fal ko tey bu ñu fayewee nii nag nekk na lu ñu bett bett nañu torop jeexal na suñu xol parce que ñun dina nekkuñu fi di def leneen lu dul daan suñu doole liggéey buñ soxlawee fii tamit mën na ñoo mën a yóbbu feneen wala fay bi ñu maase fay ñëpp mais man mi di wax ak yow jotaguma te 2013 ba tey maa ngi fi yàgg na loolu xam nga du tey yàgg na sama morom noonu sama morom ñee bañ fi nekkee yàgg na ñoo ñu maase bi mais kenn fayaguñu kenn bare ñu ne fay nañ ñëpp xëy suba rek toog dem ci guddi rek lañ toog ñu ñëw indi seen i ato ndaraan ñun ñëpp suñuy bagage man samay bagage sama magasin ba sama lépp yàq nañ ko. suñu baat agul fenn suñu doole agul fenn fi tamit am na ñi xam ne bëgguñu ko def tamit mënuñu xex mënuñu xolo mënuñu yaq mënuñu taal mënuñu def dara li doon lañ man def taxaw taxaw ñaan ngir yalla ngir yalla ak yoonte bi president ngir yalla mu dimbali ñu li fi nek ci ay jeune xolal li taxaw yeb li fi taxaw yeb moy de 40 ans la ñepp ay xalé lañu amuñu luñu def li fi lañu yaakaaron yor fi suñu njabot de nga ko fi gis dafa yor fami ginaawam ñepp famille ñepp yëpp ginaawam lañu yaakaar ñu xëy fekk marché bi def nii lii metti na lii tiis na lii naqari na ci xol neexul ci xol. ñoom nag doon ay njaboot teg nañu lépp ci loxo suñu boroom di ñaawluwaat doxalinu nguur gi te di xamle ni chômage bi ñu leen teg dina jur jàngoro ju nit dul mën a saafara. waaye ñun daal bu ñu yëkkati woon sax ne ah comme yëkkati nañ leen fii xaaral ñu wutal leen foo leen toog parce que fii doomu aadama ji fi nekk rek kenn mun la wax na mu doy fi ñi fi taxaw ñii ñëpp fi la ñuy liggéeyee. ñii fi nekk ñi nga gis ni ñëpp fii la ngi liggéey si rond-point bi ñii ñu ngi si dimbali seen waajur yi ñii ñu ngi si defal seen soxna ñii ñu ngi fi fay seen location lu ñu ci jox seen dund léegi nga xëy xëy dégager leen ñu taxaw nii du xoolee xam nga li tam c'est pas normal waaye nag yàlla nga xamante ne moom rek a fi ne du kenn ku du moom parce que nee nañ nguuru yàlla rek a dul jeex yàlla mi nga xam ne moom moom kese moo fi nekk nag yàlla dinañu may nag feneen fu gën fi si barki yorente bi xoolal lii xoolal ñi ñëpp nar a somé ji ñi ñëpp nar a dem taxawaalu ji ñii danoo nar a dugg si gaal yi bu ñu fii ñii ah amaana ñoo xam ne mën nañ dem agressé bu ñu jógee fii am na ñi nga xam ne bu ñu jógee fii mën nañ dem bay mbay mi doxul loo bay doo ko jaay lii metti na de jeunes yi nga gis fii du si ñàkk koo xam ne day jóge fii dem agressé ji du ñàkk koo day jóge fii dem sàcc yi du ñàkk koo ne day jóge fii dem si gaal yi bakkanam des fa loolu yëpp responsabilité état bi la. ñun ñii ci réew mi lañ bokk doomu réew mi lañ dañoo nekk ci dëkk bi liggéey tekk ci dëkk bi kenn defaluñ moom état defaluñu dërëm te bu ñu soxlaa ñu ànd ak moom parce que dañuy dundee yaakaar mais nag politiciens yi ñoo mel noonu koo ci jàppale après bu kiiwee fàtte na la.